parce que euh, am na sax ñu ci stigmatisé mais tey euh, rey fu na lay am fii ci foire bi rek am na ñaar ñu génn ci taxi rek ci station di njëkkante place kenn ki jël balu fetal dóor ko nga dem parcelle lii c'est parcelle xale yi di football ci match football benn moroom jël birig dóor ko moroomam ci bopp nga ñëw ginnaaw université xale bu jigéen bi ñu jam ko ay butéel ba mu faatu donc sécurité amul fenn waaw waaw borom saret donc du Pikine wala dëkk tey États-Unis moo ñu ëpp ay moyens am na ay caméra am na ay jumtukaay mais dañu nekk ci insécurité ba ku nekk da nga yor sa ngànnaay donc sécurité sentiment la c'est un sentiment tu dans le de de sécurité moi j'habite dans les quartiers populaires Pikine bi ma dëkk secteur bi ma dëkk doo xalaat sax dox ay waxu agression parce que ñun dañoo costé foofu bu buñ la jàppee yoo xam nga ni duñ la yóbbu police et puis comme ni ñu dundee noonu malheureusement feere ci technopole technopole yàggul Euh, mooy loo xam ni périphérie la boo demee si ay kër yu bees la ay nit ñoom ñoo dem dëkk appartement mooy société bi ñu xamoon nga xam ni nit ñi dañuy dëkk mm. man Cheikh ma damay yeew suñu kër ñu togg dama daa mm. moroom bu fukki kër dem ci àngal ba dem lekk kër ñoom grand père ah, dem lekk fa ceebu jën mais bu fekkee kër goo xamante ni ku nekk sonnerie mm. ku nekk fi nga yem nit mën na fa dugg boom la dara te dara du xew dañu dem ba commencé jël ay jikko occidental yu nekkul ci nu bas beneen bi beneen bi waxtaan bi ëpp solo pour man dafa am benn laaj boo laaj maanaam mbiru alal sàng bi ñuy waxtaan dañu commencé si sunu maam Serigne Touba dañu commencé si ay valeur c'est-à-dire tey alalu àdduna jaral na nit ki mu jël bakkan alalu àdduna jaral na nit ki mu jaay ngoram alalu àdduna jaral na nit ki mu jaay boppam imaam sunu diine daf ñu jox exemple lu ñuy yaree suñ doom yàlla won ñu ci suuratu Luqmaan mm-hmm. joxe ko exemple ci lan la digal doomam loolu mooy lislaam won nañu boo amee sa doom nan nga koy yare lan lay moytu parce que nit ki bu fekkee ni gëm yàlla ragal yàlla nekkul ci moom ba amul dara lu mu jombale boppam gis nga yàlla xam na ni moo tax man sama yaay mënu ko fay lëjoon naa te am naa fit wallaahi walaazim mais parfois sax su ma génnoon sax nar a def dara sax damay xalaat sama yaay bu ko déggee nan lay réagir loolu mooy jomb-jomb gis nga bu ñu la nit dafa am jomb mooy dafa am lu muy jomb l'islam balaa muy ñëw sax dafa ñu fekk ñun ñu am ay valeur ci suñu société muy ci ci ngor gi muy ci maandu muy ci jub gi nga war a nekkee muy yow doomu diw nga waruñu laa dégg ci nàngam wala sàngam gis nga kersa googu su deñee musiba la léegi nag beneen bi xam moo ëpp solo mooy tey violence boobu dafa dem ba nekk ci ñun il l'a dañu banaliser la mort c'est-à-dire nit bu dee ak kaña bu dee lañu yamale léegi parce que maa la koy citeel sànq. dañu am violence verbale physique boo taqee ñaareel léegi buy ñëw bu ñu koy yab dañ naan ko xëppante asib la ñu taq xale bu jigéen bi mariage mu yor épée yor jaasi ku yor jaasi di dugg ci kër pour sëy waaw maanaam dañu dem ba jàpp nañ ni même si biir kàddu sax même si suñu làmb ji sax Tapha Tine ak Balla benn image la nit ñi jàpp mooy bu ko Balla Gaye dugalee ku Tapha Tine nit ñi bu combat bi bu jàppante woon mbotante dañ naan la combat bi neexul tant que on ne voit pas le sang tant que ça ne saigne pas beneen bi sunu ñun dañu nekk ci société bu feebar imam société bi dafa feebar xam nga tax société bu feebar hmm. yàqamtey fen hmm. maa xam maa fekkee internet balaa nga ciy dugg da ngay nite mais ñun dañu nekk ci société boo xam ne dañuy tabax dëkk tabax ay pont mais duñ tabax ay nit dañu war a jublu ci defar nit yi defar nit yi nag mooy ñu defar leen ci jikko yi mm-hmm. parents yi am ci responsabilité société bi ñu xool mais ñun dañu nekk ci société boo xam ni c'est l'avoir qui prime sur l'être maanaam am-am bi la ñuy nattee nit ki nattee wuñu nit ki moom mi duma xool ndax am na xam-xam du ma ndax am na jikko bu rafet damay xool ndax costume bi mu sol ban marque la ban montre la wala ban yére